man écologiste la donc euh, xam nga ñun écologiste bi alam bi moo ñu ñor on aura beau parler de démocratie c'est une très bonne chose on aura beau parler de consensus pour aller vers des élections c'est une bonne chose mais tant que la mer cette ressource économique très importante patrimoine national où nos enfants vont pêcher quand ils attrapent du poisson, eux, ils pêchent, ils ont des emplois. Ce poisson est transformé par des femmes transformatrices qui créent des richesses. Et une fois transformé, il est consommé par nos mamans. C'est une autre richesse. Donc cette richesse halieutique, cette richesse de la mer qui nourrit des millions de personnes, cette richesse forestière qui nourrit des millions de personnes, pour nous, pour nous écologistes, C'est ça qui est capital. Alors nous sommes venus ici pour porter la voix des poissons, la voix des arbres, la voix de l'écologie, la voix de nos terres cultivables, la voix de nos ressources naturelles, de nos ressources minières. Alors, enfin, c'est vrai que nous ne sommes plus très présents sur le champ politique, mais sommes toujours sur le terrain en train de planter des arbres, Dites-moi quel Sénégalais ou quelle personne dans la planète, partout, qui a planté 200 millions d'arbres. Il n'y en a qu'une, c'est moi, Ali Haïdar. 200 millions d'arbres qui poussent, j'ai planté. Donc vraiment, j'espère que nos politiques et que le prochain président du Sénégal prendra, prendra la mesure de cette importance, car ils veulent créer des emplois. Mais s'il y a du poisson, tous les pêcheurs vont avoir de l'emploi. Ils veulent créer des emplois. Mais si la forêt naturelle est préservée, il y aura beaucoup de fruits à collecter. C'est de l'emploi, c'est des richesses économiques. Alors pour nous, vraiment, on espère que le Sénégal, les politiques comprendront l'urgence d'agir pour nos ressources. Merci. Mais il y a un autre enjeu, le choix de la date. Quelle est votre position là Bon, demain matin, et j'aurais bien aimé être candidat. Donc, euh, l'essentiel, c'est que les différents candidats qui ont déposé leur caution, qui ont été validés par le Conseil constitutionnel, et les candidats potentiels et les leaders politiques. Moi, je suis leader de l'écologie. J'aurais bien aimé être candidat, mais je n'avais pas la caution de 50 millions. J'aurais bien aimé être candidat. Je n'avais même pas la caution de 15 millions pour aller aux élections législatives, vous vous rendez compte Alors que pendant ce même temps, moi, celui qui est allé sur le bateau le Diola, moi, celui qui a planté millions de propres mangroves dans le delta de Casamance, le delta de Saloum, moi, je n'avais pas 15 millions pour aller porter le message de l'écologie à l'Assemblée nationale. J'ai vu quelqu'un qui passe à la télé et qui raconte des histoires à dormir debout. Franchement, vraiment, je voudrais que les Sénégalais comprennent mieux l'urgence d'agir pour l'environnement. Merci beaucoup, M. Ali Haïdar, l'ancien ministre de l'Environnement. Donc, euh, nous donne euh, ay euh, kàddoom donc euh, sëñ Sadaga yow jëloon nañ la léegi mais ñu jëlaat euh, ñu jëlaat la rek ñu sekkaat tuuti. sa gars yi ñëwaguñu de ñi boycotté. ah mais ñooñu ñooñu duñ Sénégal ñoom kese fii boo xoolee saal bi chef religieux yaa ngi fi ci côté yëpp muy jàngu bi murid yi tijaan yi xaadir yi politicien parti yëpp a ngi fi. boo jëlee Sénégal parti bi fi ëpp doole mi ngi fi APR beneen parti yi Moustapha Niasse mi ngi parti socialiste mi ngi fi euh, muy AFP euh, PDS ñi ngi fi ak yeneen parti yu bari ñi ngi fi gis naa ba gis fi capitaine Dièye bële nga xam ne nit la koo xam ne xam gëm naa ne Sénégal ñor na ko ñooñu ñëwul kee moo leen ëpp mérite te kee dañ koo génne ci liste yi kon ñoom ñi ñëwut moo leen ëpp mérite parce que Sénégal ñor na ko ku dégg waxtaanam nga xam ne Sénégal ñor na fii képp koo xam ne buy siwoo Sénégal ñoru la bëgg nga Sénégal tàkk mais war na ñoo xam ne Sénégal tàkk du suñu njëriñ parce que ku ci ne war ngaa xam ne Sénégal dañ ko war a taxaw jàpp ko ñun ñëpp ñu yëkkatee ndoo dóorandoo Macky Sall dafi mën na fi nekk Sénégal dafi ne Macky Sall nekku fi Sénégal dafii ne kon nag yëf yi mooy ñun waa Sénégal ñoo war a jël suñu réew ñu defar ko mais li ma gis ci ñenn ñi ak woote xeex bi ak taal ci mbedd yi te ñoom ñiy xeex seen doom yi ngi seen biir kër yi loolu lu ko gën a doy war kon li gën mooy ñun ñëpp ñu ànd taxawandoo waxtaanee réew mi parce que président Macky Sall tey bu fekkoon ne dafa wéet rek ne jàpp naa élection yi date sàngam ñoom ñu ne lu tax mu jàpp ko lu tax mu jàpp ko la ñuy wax moom dong mais lu tax mu woole ñu ne duñu wuyu si kon daanaka ñoom dañoo jox carte carte balance président Macky Sall ne ko defal loo def baax na. bu fekkee loolu lañu def nañ ko wax te bañ a sonal nit ñi am na ñoo xam ne seeni candidature leerul parce que ñi nga ne dañoo dañoo ñu jënd ay parrainage ñu ngi koy jiiñ ñu jiiñ ne dañoo dem yor ay double nationalité ñi nga xam ne dañ leen a jiiñ ne dañ leen a mottalil am na ñu leen mottalil nangam nangam yi ne seen biir moo waral ñoom ñeme wuñ yi parce que ku ci ne jàpp na ne affaire bi bu amaatee procédure rek. seen àddina tukki mais loolu a tukki àdduna ñàkk ba ñu doon candidat ci am réew yàqul dara ma dikk ñaamee doonoon na fi candidat mais jàllutoon ma nga ne toog ci dialogue bi Sénégal ñor ko boo jëlee gis naa fi far Farba Senghor gis naa fi ay ay Babacar gay ñooñu noonu ñëpp ay kilifa la ñoo xam ne Sénégal ñor na leen kon nag ñi ngi ñaan ñoom ñi ñëwul mënuñu yàq dara ci dialogue bi dara lañ ci mënta yàq parce que ñoom rek lay yàqal parce que lu tax mu leen di yàqal mooy ñoom ñoo doon kandidaa ñoo ko bëggoon doon ñoo bëgg a laaj réew mi ñoo soxla kon nag ñu ngi déglu rek incha allah dialogue bi ñu ñaan yàlla defal ñu tawféex ba ñu jëlee ci loo xam ne mën ñoo jural Sénégal njëriñ lu rëy loo xam ne mën na taxawu Sénégal parce que loolu lañ jàpp ne mooy njëriñ. jërëjëf jërëjëf honorable kon euh, muy euh, kàddu euh, ñu jéem a am Mbacké Dollu moom tamit euh, di kilifa politique euh, ca Touba sëñ bi yaa ngi yaa ngi en direct sur euh, Sénégal 7 dëgg la tànk yi tey dialogue bee la fi indi mais dialogue bi dafa mel ni am na ñu wuute de mbaar hmm. déggoo dina fi mën a am tey dëgg la dëgg la waaye li ñu am solo ba tax ñu ñëw it mooy dialogue bi président wuyu ca it dialogue boobu gëm naa ne képp koo xam ne bëgg nga Sénégal wala Sénégal ñor na la da ci teew Euh, ñeneen ñi nga xam ne nag Sénégal ñëru leen ñu ngi ci leneen waaye li am solo daal mooy moom lépp lu mat a def def na ko wax na ne moom ci jëmmi boppam jël na mandat bi ko yoon jox mu renoncé ko ngir bëgg Sénégal am jàmm ngir bëgg Sénégal ñu waxtaanee ko wàññi ko na moom ci jëmmi boppam ne mandaam la deux lay jeex wàññi ko na woo Sénégalais yi nii kaay li ñu toog ci taabal waxtaan bu ko defee li fi ne ñu xool nan lan war a mën a def ba organiser waat ay élection ba nga xam ne képp ku ko Sénégalais yi jox mu jox ko ko ca jàpp naa ne nag loolu ku bëgg jàmm koy def ndax nag booba léegi si yaakaar naa ne un an yëpp mi ngi ci wut jàmm mi ngi ci wut dialogue mais nag am na ñoo xam ne mel na ne loolu ñuru leen waaye lu am solo bu am solo daal mooy tey ndaje mi bu fekkee ne yàlla dogal na ñu jógee fi lépp luñ ci génnee rek président dana jël décision te bu jëlee décision la mu jël décision it faw mu doon loo xam ne it ah danañ ko mën a respecté parce que du bàyyi Sénégal ay nit ñoo xam ne nii bëgg ñoo waxtaan bëgg ñoo waxtaanee Sénégal dañoo bëgg a taal Sénégal wala ñu bëgg a loolu moom yaakaar naa bu buñ ci jógee engagement yemi jël dana ko jël mu mat sëkk parce que nag ku ne bëgguma la deux la sama mandat bi ñëw ñu toog waxtaan Sénégal keneen ku loo xam ne ñoru la ca sëñ bi Euh, waxtaan tudd waxtaan waxtaan lu tudd nan toog waxtaan ñoom ñox ni ñu ko bëggee ak li ko bëggee parce que it boo xoolee ñoom candidat yooyu di wax seize candidats yi lan mais lan moo ban article moo leen moo leen tànnoon te lim leen tànnoon yaakaar naa le 24 bii démb la jeex ah kon bu ñu tànnaat ñeneen lan war a tànnaat ci yoon wala ñoom ñu bokkaat ci ñi tànnaat jàpp naa ne mbir mi faw ñu euh, organiser waat ko taxawaat yeneen i euh, procédure pour mën a tegaat ñu taxawalaat ko seggaat ko xam ñi nga xam ne. ñi ngi leen di joxañ baaraan ci bokkut ak Rose Wardini ay yeneen candidat yu naan am nan am nan ay double nationalité bu boobaa ñooñu it danañ mën a génne seen bopp ci suuf lijjanti seen mbir bala ñuy eggaat ci ay élection jàpp naa ne man loolu laay xaar tey ci dialogue bi loolu laay séntu ci dialogue bi. nga ne euh, mbir mi dina dina yombee noonu ñu reprendre processus bi ñeneen ñi duñ ko nangoo noonu te gis nga leen temps yëpp ñu ngi ci mbedd mi di manifester tout. xam nga nit bu bëggee mu nekk ci mbedd mi kenn mënu ko te nekk ci mbedd mi xam nga kaa ñu toog waxtaanee ci réew mi bokkuma man mi arbitre bokkuma ah ku ko bëggut nekk ci mbedd ma da ngaa bëgg nekk ci mbedd mi ki nekk ci mbedd mi nag moom ala kulli mbedd mi mooy place am parce que loolu la gëm loolu la gëm ne am réew da ko a wut ci violence yàq alali jàmbur génnee gone jàmbur yi rey doomi jàmbur yi ñoom jàpp na ni ci loolu lañ wutum réew loolu kenn mënu ci dara licence que li am solo président toog nañ ne man bokkuma kaay leen waxtaanee réew mi ku fi Sénégalais yi teg ma jox la ko loolu yaakaar naa fa la bëgg jàmm fa la a nekk wut jàmm it fa la a yem keneen ku wut la ne gëm naa ne nag li feeg mi ngi nekk amut keneen ku mu defal passation service ci réew mi ku fi bëgg la ne gëm naa ne loolu ah, la ci fekk yow la. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon euh, sëñ bi di kilifa politique kon ca Touba euh, Mbacké donc ñu jéem a jëm côté bële. toujours jël quelques réactions kilifa yi nga xam ne ni ñoo teew ci dialogue national bi donc euh, monsieur le ministre <laughs> <laughs> le ministre ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. Euh, nga ñëw teewee dialogue bi mais bëri nañu wuute tey de. waaw ah d'accord kenn ku nekk ak sa conception la. mais fi mu toll nii c'est l'intérêt supérieur bu réew mi la. réew mi su wootee moom kenn gënul sa morom su ñu la nee kaay waxtaan da ngaa ñëw wax xanaa nit ki. du ragal ba su la waxee doo ko mën a tontu xanaa nit kii yow du yaakaar ne yaa ko gën ba doo mën a wax ak moom gis nga dialogue moo jiitu ci àdduna te moo ci te moo ciy mujj te kenn mënta fexe ba datu 25 yu ñu wate c'est terminé date ba décret ba ko fixé woon jeex na décret ba convoqué woon élection yi le jeex na kenn mënta fexe ba mu ñëwaat ce n'est pas possible donc même li fi conseil constitutionnel jëlee moom la fi tegaat affaire bi kon du du constitution du loi du règlement xam nga lan la Sénégal c'est l'un des grands pays de l'Afrique de l'Ouest ku ku ku gis réew mi xam ne réew mi liggéey nañ ko principalement président Macky Sall liggéey na réew mi donc loolu ñu liggéey ci réew mi nag dañ koo war a jël ñu ak président yi yi ko jiitu woon Ablaye Wade ak Léopold Sédar Senghor ak Abdou juuf ñu taxawal ko ba réew mi egg fii kooku waruñu ko bàyyi ëllëg muy yàqu ce serait un danger que ñu dem impasse boo xam ne ëllëg lu nekk dafay mën a xew donc koo xam ne ñëwuloo tu as ngaa war a ñëw nga waxtaan si ñun ñëpp dañu war a toog ñu waxtaan pour l'intérêt supérieur de la nation suñ la waxee loo xam ne d'accord nga ne d'accord aussi su dee loo xam ne mën nga ko dégg mën nga ko dégg ñu fexe ba am consensus ñu am élection yoo xam ne dañ koy préparer d'une manière clair limpide jël tout le temps parce que élection yi ñu bëri nga doon wax gars yi gars yi pare wuñu woon pour dem élection donc coow la donc nañu jàpp date boo xam ne kenn ku nekk dañ cee mën a gis sa bopp ñu préparer ko ku gagné ñoo xam ne yaa gagné dans la transparence mu nekk élection yoo xam ne yu libre lay doon loolu man moom laa gis ñu war ko def donc waxtaan bi ñëpp la war mais bu ma la déggee yow tu es d' accord pour ñu reprendre processus bi à zéro. non man maa ngi d' accord ci li sénégal yi li nga xam ne ñii ñëw ci dialogue bi moom la ñu d' accord. d' accord. non li ñu d' accord xamaguma ko parce que commencé guñ dialogue. donc mais dama ne li ñu war a d' accord mooy ñu def élection yoo xam ne kenn ku nekk da ngay mën a jël sa temps ñu dem ci élection yi nga préparé wu mën a wër Sénégal mën a seet sa ay am di jàmm mën a wax. gars yi mën a toog lu déglu la nga convaincre Sénégalais yi ñu ñu donc la personne qui est la mieux placée man loolu laa wax donc su fekkee dafa laaj ñu jàpp date boo xam ne ñëpp lay convenir ñu jàpp date boobu mais suñ ko soroxo soroxoo tam dañuy am loo xam ne ëllëg du <coughs> da nga mën ngay fal nit sax nga naan cem man ndeka man lii kii laa fal man su ma xamoon du def loolu mais yu bëri Sénégal fal nañ ay nit gaa yi leen fal ñi ngi réccu c'est-à-dire loolu day leçon boo xam ne nag loolu leçon boobu day nit day jël ay leçons cest à histoire da nga koy reconstituer c'est la reconstitution du passé donc nga tirer ay enseignements pour que ëllëg li la daaloon dootul daraat waaw. jërëjëf kon euh, monsieur le ministre euh, doon na yëkki euh, naa fi quelques candidats recalés aussi donc ñu jéem a déplacé rek. peut-être jël euh, pardon jël quelques réactions c'est possible de l'autre côté salaamaaleykum pardon on va de l'autre côté pour avoir salaamaaleykum ça va okay. jàkkaarloo euh, yaa ngi en direct sur euh, Sénégal 7 ah tey nga ñëw euh, <laughs> dama laa bett quoi di jégalu mais tey nga ñëw teew ci waxtaan wi lan moo waral teewaay ah waaw man dama bokk ci ñi nga xamante ni njiitu réew mi invité comme ñi fi teew ñëpp pour ñu ñëw teewee dialogue bi loolu moo ñu indi en tant que citoyen en tant qu'artiste on se doit d'être présent et déglu le premier sénégalais loolu moo ñu fi léegi coow li nga xam ne ni aussi en tant que citoyen sénégalais yaa ngi ko ci dégg datu élection yi nañu am consensus bu ñu am consensus nañu reprendre processus bi et cetera et cetera lan moo ci sa position. waaw xam nga euh, coow moom bu amee ñëpp waruñu dem dans un même sens. mais li ëpp li am sens mooy ñëpp xam ne on est tous ensemble on est tous ensemble ñun euh, peuple bi moo ñu fi teg li ñu bu ñu amee lenn lu ñuy bàkkoo fii ci biir réew mi ba ci biti dañ koy delloo ce peuple sénégalais donc teewal peuple bi moo ñu gënal teewal ku ne te peuple bi doo ci.